sigil nga Malik sal samaam ak kuy ñoñam sigil nga xalifa bi sigil nga astafa si si doo moroom sigil nga maalik xalifa bi sigil nga astafa si doomoro sigil xalifa bi sigil nga astafa si Mustafa si doomoro sigil nga malik sal samaam ak ñoo Mustafa sigil nga khalifa bi sigil nga astafa si doom sëñ Mustafa sigil nga malik sal ak kuy sigil nga khalifa bi sigil nga astafa si doom moro sigil nga malik ak Mustafa sigil nga xalifa bi sigil nga as ah, ah, ah, sëñ Moustapha umoo ko nampal ci leeri baatin du ñee keneen moo doon nu leer ya ca sa tuub tafa si doo sigil nga Malick Jamil samaam ak kuy ñoñoom sigil nga xalifa bi sigil nga as tafa si doo baatin si Mustafa si Mustafa umoo nampal ci leeri baatin du ñee keneen moo doon nu leer ya sa tuub rasool tafa si doo borom sigil nga Malik si doomam li réer ti waawan bu doon dollar bor wàcce ñu gëm Maodo la tuumal ak mbay sa tafa si doomam borom sigil nga Malik sàll samaam ak kuy ñor ñoom sigil nga nga xalifa bi sigil nga astafa si doomu Moustapha li réer ti waawan bu doon dolaar boo ràcce ñu gëm Maodo lo tuumal ak mbay sa baay tafa si doomu sigil nga Malick Sall samaam ak kuy ñu Moustapha sigil nga xalifa bi sigil nga astafa si doomu Seydi Jamil lay lay la la la la taawu yaay daba jamil dem na bàyyi ñoog sooro jamil tafa si doo moroom sigil nga malik ndeysaan sal samaam ak kuy ñoom sigil jamil sigil nga xalifa bi sigil nga astafa si doo moroom mustafa la ilaha illallah la illallah taawu yaay daba jamil dem na bàyyi ñoog sooro jamil tafa si doo moroom maam sigil nga Malick oh, Sall sa maam ak kuy ñoo ñoom Moustapha sigil nga xalifa bi sigil nga sëñ Moustapha lay lay la la la illa la taawu yaay daba Seydi Jamil dem na bàyyi ñoog sooro Jamil tafa si doom moroom sigil nga Malick Sall sa maam ak kuy ñoo ñoom Moustapha sigil nga xalifa bi sigil nga Mustafa la ilaha illallah laa illallah taawu yaay daba jamil dem na bàyyi ñoog sooro jamil tafa si doo moroom si gil nga malik sal sama ak kuy ñoom si gil nga xalifa bi si gil nga astafa tafa si doo moroom doom sigil nga Malick Sall sa maam ak kuy ñooñu Jamil sigil nga xalifa bi sigil nga Astafa si doom Sëñ Moustapha ko ba Dakar dëj mal Tiwaawan ba biir Louga ku nekk naan lii de musula am tafa si moroom si nga Malick Sall ak kuy ñoo ñoom xalifa bi si nga astaf si moroom Seydi nga Malick Sall ak kuy ñooñoo jamil sigil nga xalifa bi sigil nga astaf si doom gamu seydi jamil ko fa Dakar dëj malti waawan ba Luga ku nekk naan lii de musula am tafa si doom moroom sigil nga Malik sal sama si doom jamil ko fa Dakar dëj malti Tiwaawan ba biir ku nekk naan lii de am tafa si doo moroom sigil nga Malik Sall samaam ak yi ñoñom waaw sigil nga xalifa bi sigil nga as si doo moroom